Bonjour, comment ça va et comment va la ñu dikkaat ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu wér-gi-yaram beneen yoon ak nen xamee ne dafa baax lool ci suñu wàllu wér-gi-yaram ndax dafa bëri ay vitamine am na vitamine A am na vitamine D am na vitamine A te vitamine yooyu yëpp ak njariñ bi nga xamee ne mën na koo indi ndax bu fekkee ne vitamine A la dafay leerali bët kon képp ko xam si ne say bët dafay xaw a di lëndëm del jël nen ndax nen bokk na ci li leerali bët ndax vitamine A bu fekkee ne vitamine D la dafay protéger bépp feebar boo xam ne war na jëm ci sa yaram kon kon nen bokk na ci lu baax ci nit ndax vitamine D daal di ñoŋal sa deret kon tamit ba tey ci xeeti njariñam loolu bokk na ci te waxuñu ne nag nen baax na ba tax ñu ciy lekk lu ëpp kenn bu fekkee ne euh, blanc bi nga jël ko euh, diw ci li a dox ci tàngoor loolee daf ciy daal di baax ba nga xam ne sa yaram bi bu dee fekkee ne naaj bi da ko war a lakk du koy lakk ndax dafa baax bu fekkee ne tamit da nga bëgg mu defar li nga xam ne moo di saw yaram jël jël lu zone li ne ci biir bi di ko boolee ak li nga xam ne moo di lem di ko diw ci sa yaram bàyyi ba mu am lu tolloo 15 minutes nga doog a sangu loolu tamit bokk na ci li nga xam ne dina defar yaram bi ba der bi mën a rafet bu fekkee ne tamit jigéen ñi nga xam ne tamit dañuy yéex a ëmb dañuy daal di li nga xam ne moo ko ci frigo bi bàyyi ko ba nga xam ne sedd nañ ñu ko di ko def ci seen kanam laataa ñuy ànd ak seen borom kër loolu bokk ne tamit baax na ci eh, taxaw googi kon nen daal ak njariñam nekk lu am solo ci nit ndax yooyu ñu lim yëpp bokk na ci li nga xam si ne ay xeeti njariñam la kon jërë ngeen jëf mbokk yi ñu topp ci 24actu point com loolu la leen indiloon suñu wàllum wér-gi-yaram di leen jox dig daje essaie de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé